52 sunu gan imaam Youssoufa Sarr salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi nuyu El Hadj Ndiogou Diène yow yaa jiite imaam Youssoufa Sarr fédération sénégalaise des associations de consommateurs maanaam association yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi tey sàmmal nit ñi seen ak seen yelleef ci li jëfandikoo. ak lu mu doon. nga jiite itam association sénégalaise des usagers de banque maanaam ñiy jëflanteeg banque yi itam ngeen leen di sàmmal seen seen i ak. ci jamono itam imaamu géejawaay yi collectif des imams de géejawaay yi mooy jamonoy yu coupure courant yu tar yi amoon ci jamono may wadd euh, imaam Youssoufa Sarr hmm. li ñu bëggoon euh, njëkk xam euh, ci saw xalaat mooy li fi xewoon àjjuma ci assemblée national hmm. loi yi ñu doon yeesal ngir gën a xeex terrorisme ak coow li mu indi opposition beek yenn kuréel yu ni ci société civile bi ne hmm. ngir gën noot ñi àndul ak nguur gi ko tax a jóg waa nguur gi wax safaan wa luy sa gis-gis ca coow loolu sëñ Babacar lay nuyu te la euh, sant ci invitation bi di nuyu auditeur bu RFM ci réew mi ak ci bitim réew euh, mbir moom nga wax euh, ñëpp a ko gisandoo ay àjjuma wax dëgg yàlla dëkk bi xawoon naa jaxasoo tuuti waaye li ko ta li ko jaxase nag man li ma jàpp sama jàpp sama jàngat laay wax parce que mbir la boo xam ni ñi mu itteel dëgg-dëgg wax dëgg yàlla mooy woyu politique yi ñi nga xam ni ñoom politique lañuy def te politique itam du lu baax la euh, réew moom faaw mu am ay ñi nga xam ni dañuy féete fii ñuy féete fii waaye nag gis nañu ni euh, nu ñu ko gisee ak euh, loi bi ni mu tëddee ak ku nekk boo déggoo lu ñu wax ñi indi loi bi li ñu wax ak ñi nga xam ni jàpp nañu dafa am lu ñu ragal ci biir ñooñu ñëpp man jàpp naa ni ñoom ku ci nekk manees na la nangul li nga xalaat mais ñun ñi nga xam ne nag ñooy euh, population yi ñun ñooy suñ problème mooy politique yi woy politique yi dañu nekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, joxuñu cër bu bare ñi nga xam ni ñooy population yi parce que ñoom dañoo jàpp ni population yi dañu nekk ñoo xam ni da ngay ñëw rek euh, dugal leen ci ay mbir manipuler leen ba am li nga bëgg dem te loolu nag jeex na fi depuis 2000 depuis maanaam ko ñi ngi xam ne way politique lañu ñoom euh, xëy na jàngatuñu ko waaye loolu depuis mil la jeex boo gisee le le peuple sénégalais léegi dañu dañu am maturité kenn du leen dugal kenn du leen dugal ci loo xam ni lii wóor na leen ni euh, jaaduwul walla teguwul ci yoon. par contre dañu nekk ñoo xam ni euh, lu lu jot rek. comme ni ñu ko defee woon le 23 mm, juin 2021 boobu boo gisee ñu meloon gis nañu plateau yi ñëpp envoyé que mais le peuple jàpp nañ ni politiciens yi ñoo ko ak moom waaye jàpp nañ ni euh, Sénégal ci boppam ñoo jógoon mais mbir mi yaa ngi wax ni mbirum politicien la askan wi seen yoon nekku ci alors que euh, projet de loi bi li ci lay war nee nañ dañ ci dugal loo xam mbubboo terrorisme dugal ci loo xam te ne day nasaxal ak ak yelleefu doomu adama maanaam boo manifester ñu aaye la ko bu coow amee mën nañ la jàpp euh, sa tëj la sa gérig dund ndax toppale mbirum terroriste est ce que loolu yitteelul askan wi du leen waaw loolu de waxuma ni as waxuma dama ñoom coow li laa wax coow li ci boppam mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk laa wax c'est-à-dire li xew rek lu xew rek itteel na askan wi lo surtout loi loi bu nga xam ne ci lañuy sukkandiku pour teg yoon kon loolu moom mënta ñàkk itteel askan wi li ma wax mooy coow li ak ñu mu ñu ko tëggee ku nekk ci de part et ku nekk ni nga ko tëggee noonu man ñi ci biir tëggin bi joxuñu àq askan wi ci seen capacité de réflexion ak seen capacité d'analyse ñoom dañuy ñëw rek ci micro bi wax bu ko defee eh, ñii ñun ñi nga xam ne ñu ngi fi toog ci suñu kër yi dañ leen di déglu rek bu ñu paree ñu bu bu waxtu jëf jotee ñu jëf ñun. Mm-hmm. loolu la loolu laa bëgg wax wooteeg fitna gi nag léeg-léeg euh, euh, noo ko gisee. Euh, li ma jàpp mooy fitna ci actuellement te bu fekkee dama lay wax li ma gëm ci loi bi li ma ci gëm. Euh, ak tuuti li ma ci xam xëy na am na ñu ma ko gën a xam xam naa ni suñu réew fi mu nekk nii nekk na réew boo xam ni mi ngi ci lu ñuy wax creux la vague maanaam mi ngi nekk ci euh, diggante bu xaw a doy waar bu nga xam ni way politique yi ci boor bu nu mën a doon suñu ci bàyyiwul xel ñun ci suñu bopp li gën a cher ci nit mooy euh, jàmm jàmm moo gën a cher ci nit parce que boo boo xoolee ci wàll bu ne ñoom Sonko dañuy woote fitna. Mm-hmm. ñoom Macky Sall dañuy ànd ak ay ay nervis yuy dóoraate. Uh-huh. loola itam euh, yéeme na daal. loolu loolu laa la wax mooy moom laa wax léegi c'est-à-dire fitna moom ku koy ku koy woote xaw ma danga nga xamul ndax euh, musiba du yem du yem ci bopp ci boppu borom kooku c'est beneen bi mooy képp ku nga xam ni itam jël nga ay nit yu nga xam ni bokkuñu ak ñi war a saytu yoon dugal leen ci yoon. booba am nga responsabilité boo xam ne waxti wax dëgg yàlla euh, bu am lu fa am rek man nga cee am ay responsabilité mm-hmm. donc euh, ñaar man dama leen di kii doo dama leen di yabal doo à doo c'est-à-dire du ma jël euh, nii rek diw wala diw man dama jàpp ni daal politique yi way politique yi na nañu xam ne seen ambition politique jarul jàmm réew mi jarul sécurité ñoo ma de politiciens yi. Euh, imaam euh, bala ñoo euh, bala ma bàyyiwaat njóogu ci beneen fànn terrorisme googu nga xam ni moom lañ doon wootee loi yu yees ngir gën ko teengal xeex ko ci réew mi en tant que imam noo gisee li ñu naan faw Sénégal gën a fàggu ca loola ndax réew yi ñu jege xam nañ lu mu fii ba léegi yàlla ñuy musal ak li ñu naan menace bi. ak tarixa yu ñu bëgg a xabur yu ñu bëgg a attaqué ñoom seen noo ko gisee. man li ma gis mooy moom laa wax wax naa ko sànq nee naa ñun dañ nekk ci situation bu doy waar bu nga xam ni boo xoolee ñu wéy ñi nga xam ni dañu xalaat ci géopolitique ak géostratégie xam nañu ni suñu réew fi mu situé ak yeneen réew yi dañ doy na waar bu ñu deful nànk rek li xew feneen lu bëree bëri mën naa xew fii ba tax na kon ñun jàpp nañ ni. lépp benn mesure bu ñu mën a jël bu nga xam ne dafay fekk nit ñi ci euh, euh, musiba bu nar a ñëw kooku jàpp naa ni man duma ko jënde ak li ñuy wax euh, lu nga xam ni peut-être mën naa wàññi suñu liberté ak suñu démocratie parce que loolu liberté ak démocratie fii ci Sénégal samp na fi am na loo xam ni le peuple sénégalais mënu ko du ko nangu mënu ko nangu ba tax na kon am na loo xam ne bu ñu ko defee man jàpp naa ni pour fekk nit ñi la pour assurer sécurité nit ñi pour assurer la la paix dans notre pays man defe naa ne daal euh, loolu moo tax yo euh, loi bi jóg loolu laa defee man. loolu laa gis euh, li si des nag mooy dañuy dañ nekk ay sentinelle mm-hmm. ñun léegi askan wi lan moo nar a nekk seen taxawaay ci menace boobu nga xamante ne menace bu am la maanaam Sénégal ñi di terroriste ñu ngi koy bàyyi bët di koy bàyyi xel lan lañu ci war a taxawe li ñu ciy taxawee d' abord mooy collaborer sincèrement informer. les forces de défense et de sécurité ñu fexe ba képp koo xam ni gis nga lu la jaaxal ci réew mi ak foo mën a doon nga ak foo mën a nekk nga fexe ba ñi ko war a yëg yëg ko kooku moom dafa nekk loo xam ni devoir ku nekk la beneen bi moo ñu fexe ba ku nekk nga bàyyi lenn ci sa sañ-sañ nga bàyyi lenn ci sa sañ-sañ pour jënde ko sécurité réew mi ak euh, jàmmu réew mi ku nekk ci ñun nga am loo bàyyi ci sa sa bu jëndee ko sécurité ak jàmm réew ñun ñun loolu lañu jàpp ni moo mooy mën tax ba ñu gën yàlla musal ñu te encore que sax kenn mënu la xam mbir yi na muy demee bon euh, tey dañuy wax fii mais xamuñu ñiy wax sax xamuñu na muy demee hmm. ba tax na kon euh, am na ñu bare des autorités politiques ak ñoo wax def nañu déclaration nee nañu yaa yaa yaa un réseau dormant dans ce pays là euh, surtout dans la banlieue un peu partout et ça c'est soo ko xoolee bu baax ñun am na xëy na loo xam ni duñ ko wax ci antenne xamuñ duñ ci sore mais xam nañ ni lu ci bëree bëri suñ ci deful nànk ñun ñu nekk à ñu base ñi population bi suñu collaboré wul ak les forces de sécurité ak les forces de défense de sécurité duñ li wóor mooy que lu nekk mën nañoo arrivé waaye yàlla ñu ñaan nag suñu borom. mu musal ñu ci ci lépp luy musiba bu nga xam ne bu ñëwee xëy na am na ku koy woo ku koy wootal wala ku koy ku ci ku defee ni dafa réew mi daf ko war a jaxase pour àgg fenn mais du ko tal bés boo am na loo xam bu ñëwee rek kenn du ko kenn du tal kenn boo yàlla na yàlla musal ci loolu. Mhm. Mm. dañuy def assemblée ak. Euh, euh, tey euh, càmbar gi ñuy càmbar gëstu bi assemblée defoon ci commission bu mu sancoon ci xayma mbënn mi ak saafara yéen ci bëgg. Hmm. nawet bi tàmbali na gaañaa ngay xayma ñëw ni. Hmm. Euh, géejawaay nga dëkkee ak la ko wër jàpp Kër Massar Tivaouane Pël ak euh, boor boobe yëpp. Hmm. Euh, ci ndakaaru ak ci yeneen diwaan ci senegal yoo xam ni mbënd sonal na leen. yéen ban xayma ngeen di def ca fa ngeen dëkkee foofa. waaw bu ñu waxee dëgg rek wax dëgg yàlla ñun suñu xel yëpp mooy ku nekk senegal fu nekk rek sa mbokk nga fa ñun suñu problème. mooy Kër Massar ak Jaxaay moom mooy suñ parce que wax dëgg yàlla géejawaay géejawaay ci boppam am problème ya daan am amoon na mais wax dëgg yàlla boo bu fekkee dañu wax rek gis nañ ni géejawaay moom macha allah euh, am na lu bëri lu ñu doon jooy ci wàllu mbënd mi euh, faju na mais li ci li ci li ci topp mooy nit fu mu nekk mbokkam ma nga feneen yoon daal jàpp naa ni maa ngi wax ñi nga xam ne ñoom ñoo am kàddu ak jëf nañ fexe ba jaxaay Kër Massar ñu bàyyi xel ci ñoom ci mën bi beneen bi aussi mooy am na situation nouvelle bu nga xam ne am na ci réew mi ci ci Dakar yi mooy les travaux yi nga xam ni dañ leen entamé te man ragal naa ni bu euh, taw bu am doole ñëwee mën naa indi mën nañoo indilaat delluwaat ñu fa ñu. Mm, travaux BRT yi bus rapid transit yi. voilà BRT côté Guédiawaye ak yooyu. suñu boor boobu gis nañu gas bi gis nañu yàlla na yàlla musal mais. am na euh, taw boo xam ne bu fi wàccoon tey li woo mooy que dañ mën nañoo fàtte sax waa Géejawaay euh, waa waa Kër Massar parce que li ñu fa gis bu ñu amul ay système d'évacuation yu mën a dem yóbbu ndox mi mën nañu dem ba li ñuy li ñuy li ñuy ragal mu am fa mu amaat fa parce que amoon na fa mais yàlla dafa nekk sutura mais bii yoon nag ak travaux yi moom dafa war am des mesures euh, drastiques yu nga xam ne dañ ko war a teg pour mën a fexe ba. ba mbir yi yéexul di déjà juin commencé na di taw ak yooyu noonu. fekkee jëluñu motaay boobu ba léegi. mel na ni ni ñu bëgg a sax. yéex na yéex na yéex na pour man bu fekkee ni jëluñu ko yéex na parce que tout simplement taw ndox wàcc na. ça veut dire quoi ça veut dire que bu ndox wàccee liggéey liggéey bi sax dafay jafe dootoo mën a liggéey wala ngay mën a liggéey ndox ba la ñëw mais bu ndox ñëwee rek y a des donc jàpp ay solution yoo xam ne war nañ ko mën a jël ba fexe ba ndox moom ndox mu fi mën a ñëw rek ñu mën koo diriger mu jëm géej wala fu mu mën doon waaye ba bañ a lor askan bi parce que ñu suñu problème mooy askan bi encore une fois ñun euh, euh, consumérisme mooy fexe ba askan wi nekk ci jàmm li ñu war a am ñu am ko seen préoccupation ñu jël ko en compte loolu mooy moo tax du ñu faral sax loolu leen ñu fas faral di dégg ci yenn débat yi parce que nous som des Sénégalais comme tout le monde nous avons des am nañu opinion am nañu lépp mais li ñu so li ñu soxal ñun mooy jàmm askan wi loolu mm. moo mm. ñu soxal jàmm mm. askan wi moo ñu soxal ak ñu jël en compte seen préoccupation consommateurs yi ak usagers yi mm-hmm. justement consommateurs yooyu nga xam ne yow yaa jiite fédération association consommateurs yu Sénégal euh, tabaski gi di jib si euh, mbirum xar mi gisaguñ gouvernement bi euh, tegagum ci jéego ñetti semaine na ci des mm-hmm. ñetti semaine exactement mm-hmm. noo ko gisee gis naa ni ñu ko daan saytoo ci at yàlla passé gis nañu saytu bi des na ci at mi par rapport ak fi toll daan na bu amee weer wala ñaari weer daan na sax bu amee conseil des ministres wala lenn euh, président dafay wax day joxe ay euh, directive par rapport ak situation mais gis nañu ni euh, dégguñu lu bëri bëri nit ñi communiquer ci mbirum xar yi te nekk nag Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni ci wàllu tabaski ci wàllu jaamu yàlla daal am na ci loo xam ni ñun suñu dëkk dafa am nu ñu koy nu ñu koy pàggoo te il faut ñu te ci compte kon tabaski bi moom jàpp naa ni tardé na ta maanaam lu ñu ci war a def en tout cas xanaa lu ñu yëgul mais lu ñu yëg daal gis nañu ni ñu autorités yi ñu saytu bi ñu ko waroon a saytu des na des na parce que tout simplement war na mën nañu xaar euh, mën wan ñoo xaar ba mu des trois semaines mm-hmm. ñu bëgg def euh, li ñuy def daan na deux mois avant daal na nañu jël ay dispositions waaye nag ministre de l' élevage ak ñooñu dégguma leen fenn xaw ma ce qui se passe. même ci wàllum xar yi euh, ñu bëri ñi ngi ragal ren ak situation bi ni mu demee ak mbas meek yenn réew yoo xamante ne xëy na ni mbir yi demee demeetu ni ñu ragal xar yi cher ndax yow boobu gis nga am xalaat boobu loolu ngay ragal tam. loolu la ñu ragal loolu la ñu ragal c'est-à-dire que xar yi lu nga xam ni euh, en fait boroom xar yi aussi dañu impacté ñi jaay xar ñoom tam euh, mbir mi daf leen impacté. ça veut dire quoi ça veut dire que mbir mi lépp la c'est un tout foo jë foo laal rek am na am na impact bu négatif bu fa nekk ba tax na kon jàpp nañ ne xar yi jàpp nañ ni mu daan ni mu jàppandale woon daaw ak daaw jéeg mën na koo bañ a jàppandale ren ndax xar moom ak lu nit mën a wax il faut inonder le marché pour que xar wàcc mhm. ça c'est ñun consommateur li ñu jàpp mooy il faut que le marché soit fortement approvisionné pour que Euh, prix yi wàcc. ndox mm. rek mooy mën a wàcc prix yi amul beneen beneen solution. donc 30 moo ñu dese imam euh, ñu ngi wax tabaski wax xar ñu wax saf-safal yi. Mm. Euh, coow li ci fan yi baax na naam baaxul. Mm. depuis moto jaar ci tak ci Magek jumbook ak ak ñoom seen. coow li ci réew mi gouvernement bi sax yokk na taxe bi ci loola. ñii ne baax na ñii ne baaxul en tant que yéen ñi défendre. àqu consommateur yi. nu ngeen gisee coow loolu. coow li ñu ko gisee mooy wargaru état. mooy d'abord mu fexe ba dund doomu aadama yi mu fekk leen fexe ba wér-gi-yaramu doomu aadama yi mu fekk leen. donc gëstu ngeen ko saytu ngeen ko baax naam baaxul saf-safal yooya. saf-safal yooyu ñoo wax yu ci bare du ñu lépp baaxul parce que mënuloo ko wax mais li ngay wax mooy saf-safal yu bëri bëri ñu ngi koy utiliser waaye nekk nañu ñoo xam ne ñoo nekk cosaan ci lu bëree bëri ci ñàkk wér doomu adama yi kooku moom ñëpp xam nañu ko. xam nañu ni saf safal yi yàgg na fi ça mu ngi dafa bokk suñu habitude alimentaire waaye nag wax dëgg yàlla suñu xoolee bu baax euh, na mu waroon mel euh, euh, des na saytu bi des na te itam bala ñu loolu nag xëy na gouvernement dañ koy taw dañ koy doog a def waaye mm. daf lu ñu waroon a teel a def la encore parce que man defe naa ni yéex nañu ci loolu sax mm.